Mara maa lay nuyu. maa ngi lay jaar bu baax. naka mu maa ngi sant bu baax uh-huh. euh, tey gën euh, ñëw naa tànc la fii parce que euh, maa ngi doon seet xale boo xamante ne champion la ci làmb waaye bu ma la fekkee xam nga ne champion nga ci làmb fan nga nekk. Hmm, Géejawaay mbooloo laa nekk. Hmm. mais fan nga nekk laa wax gëj a gise ah non maa ngi fii rek xam nga dama voyagé woon après ñëwaat maa ngi fii rek. Hmm. Ah. géddoon tuuti rek ñëwaat rek entraîné ah, ah, ñëwaat waaw hmm. naa xam ñaata combat nga def arène parce que euh, li may ñëw ci loolu sax dinañ ñëw ci tour bi Mara Ndao jékki-jékki changé tur bi indiwaat beneen tur yooyu yëpp dinañ ci waxtaan mais ñaata combat nga def arène. bon huit combat huit combat. ñaata victoire benn nit euh, benn sans verdict trois défaites. trois hmm. nga daan. Sococib bu Lamsaar. Euh, kii nu mu tudd ki nekk écrit Wakaam. Eh, fàtte naa tur bi. Hmm. Euh, kii Balla Gaye bu hmm, daan at euh, at soq. Hmm, daan na Mandela bu Mor ak Mandela bu moom faram. Mm-hmm. kooku Arena Tour lañ daje woon moo tax ñu bëri quoi xam nga géejawaay géejawaay. waaw moo nekk Paris léegi. waaw c'est ça mm-hmm. c'est ça. Mm-hmm. ñooñu ñoo ma daan at eh, niil bu ma amoon. ñu ngi tudd ñëpp ay ñett champ ay champion lañ parce que Balla Gaye bu bu bu bu moo changé tur bi léegi tuddee boppam taqe. du moom ah, ban Balla Gaye la. Balla Gaye Balla moom. Hmm, Pakala bu Lamsaar. Pakala ah yee Pakala. grand combat la woon Aziz Ndiaye moo ko tëggoon. Aziz ah. hmm. euh, mu toll nii am nga combat. fi mu toll nii démb barki démb wax nañ ma combat mais maa ko jëlul. lu tax ah kooku musul bëri arène. musul bëri arène. ñu la koy jox kan moo la proposé loolu. Euh, sama ménagère mook baabu ak benn promoteur. Hmm. mooy ki tëgg franc kii franc. Franc Tyson 2. waa Equivox ñoo ko tëgg. voilà ñooñu la waaw parce que ma doog jékki-jékki sama ménagère woo ma wax ma ko. mbër mi kan la xam nga turam. ordinateur. waaw <laughs> oh, mbër simple la. daa nekk ci simple bi di toj. ay ba ordinateur am na lu mu def ci simple. simple nga wax simple at arène benn. moom mësul bëri arène di barki démb lañ ma wax ma ko ma ne leen déedéet. ah ordinateur bëgg naa def waaw na dem dem xool bu mu ko defee ba pare mu soog a <laughs> macha allah bu la xoolee. Euh, lépp yi mbër mu ngi ci yow. waaw moo bañ ma ko proposé dama ne non parce que comme musul bëree sama ménage dafa ne ma ba ma ko waxee ma ne ko non parce que ku bëree huit combat at ku bëreewul benn combat mënu ñeem. mënu mm-hmm. ñeem. après jamaïcain mu ngi may doxal sama combat ak maag euh, euh, tigre bu lamsar xaw ma dana taxaw wala du taxaw. tigre man borom daan raam ñëpp. bëgg nga. ah dañ ma ko proposé rek. bëgg nga laa. bien sûr. lu tax nga bañ ordinateur jël tigre. parce que tigre mu baal ma mais tigre fi mu toll ni ordinateur moo ko gën a nekk ci làmb. waaw mais ordinateur mosut bëre na bëre ko mosut a bëre wala déet mosul maanaam toj na mbapat def na lu ne waaye arène mosu cee bëre. maanaam jéego bu ñu ko xamee ci làmb rek. mbapat kon nag na koo xam ne mosut a bëre moom mu mu mu bëre combat boobu. Mm-hmm. mais tigre mais non du waaw mais champion la suñ ma ko may suñ ma ko joxee xam nga moo jëkk a bëree. ndax may may sens rek. bu dul tigre. ku ku ñëw baax na bañu ma kenn waaye koo xam ne que ne musul bëri moom xam nga ne du ma bëri moom. ordinateur baax na am na lépp mais musul bëri. dégg nga du ma du ma ce que est que du looloo tax kon nga changé sa tour indiwaat beneen tour parce que dafa mel ni xam naa tur bu njëkk ba jigu la. waaw deuxième tour bi nag moom xoyantaan bu Gambie xam nga ko roi des arènes bu Gambie. xam xoyantaan bu sama papa la chaque combat maa ngi foofu ci moom. ñu bëre koy laaj weey fan la maa ngi foofu boobu kay ma génne la photo yëpp maa ngi foofu. Baye Mandione neewoon naa ko booy ñëw coupe ongle nga waroon indi sëri ci rek. ku ne nga jox daa daw rek Baye Mandione daa daw rek. ah daw kay mënul am ci réew bi fi toll ndax làmb ji indiwaat ko Sénégal. bu taxawee maa tax mu taxaw Sénégal dama wool Jamaïcain léegi nga laaj ko. Hmm. Ah, parce que dañ ko xeexoon ci diggante xoyantaan Double Tyson ma ne ko bàyyil combat boobu danaa la jox xoyantaan gam fii Sénégal boo ko nga laaj rek moom kay loolu jarul ma ci wax dara. waaw. Hmm. Ah. noo ah, waxtaan ak ménagère xoyantaan gam waxtaan ak jamee ñu déggoo mu boole leen ñoom ñaar ñu waxtaan. xoyantaan bëgg na bëre fii ma wax ko ko mu ne moo taxaw jéemal taxawal combat bi. Hmm. waxtaan ak jamee waxtaan ak ménagère am leen ñu waxtaan ba jubóo. def na ci def ci xaalis de. kan def na ci xaalis. moomu. ah jamaïcain rek. soo ko de. maa abal xaalis de. waaw baax na moo tax ma ne la keroog maa ngi maa ngi gis sama waa nga koy sànni xeer. naan ko ministre bi da leen a ko jox leen xaw ma lan ñaata xaalis. <laughs> di ko waaw comme fekk yàq sama der solool. c'est ça mais combat bu neex ak noonu nag. waaw combat bu neex la vraiment ñu koy ñaanal moom it xale la boo xamante ni macha allah dama koy sànni xeer mais jamaïcain xale la bu am jom xale la bu am gëm-gëm su waxee macha allah nga xam ni kii am na fu mu teg bëtam euh, li ma jaaxal mooy combat boobu xoyantaan dafa mel ni Gambie la mën a toj mais Sénégal gii mënu fee toj de. Sénégal la di. wala ngeen xamu leen loolu. moom nee nañ Gambien la xoyantaan doomu Gambie la moom sax loolu la. sama dëkk sama dëkk Ndofane la gëm mu ngi ci gannaawam kañ moor la dëkk. moom ñëpp wax nañ la dëkk mais moom Gàmbi lay représenté. non déggu wax ji xam nga tey nit ki mën a dem di euh, def dem dëkk jàmbur di fa def dàngam ba dem ba siiw foofu mais Saalum gépp ñëpp xam xoyantaan parce que foofu foofu la njëkk a bëree que ne mu dem Gàmbi. Hmm. bu paree buy préparé combat da ngeen foog ne la koy préparé. fii la koy ah nga loolu nag bu ñu mbëri Sénégal bu ñu jàpp ne moom Gambien la rek fa lay Gambie lay préparé combat déedéet hmm. fii lay préparé combat ah xam nga ne Baye Mandione Faye dafa daw kat yooyu. que dañ koy daggloo weeyam te gisuñu. weey dagg wee Baye Mandione est yi taxaw nii dañu taxaw carrément gars yi jël weeyam yi duñ ko du taxaw day def nii rek wàcce waat doo ko gis mukk. daa dem ba Gàmbi ragal. war jëm jëmay kee boo ko laajee mun na la mun na la Baye Mandione daa ragal. jëmay kee kay du la wax loolu jëmay kee. copain la copain la parce que da koy may da koy waayam la euh. waaw moo tax. mais jamaykee xam na ne combat bi yàqewu ci xoyantaan ci bàyyi ma ñun la yàqoo moo nangul bëri parce que xam nañ xam nañ ne bu bëree dee daanu moom rek rek ñi ko indi woon sax xam nañ loolu hmm. waaw mooy rek ci biir enceinte bi mais xam nañ ne bu bu bëree moom mu daanu mais Sénégal nag réewu teraanga la ki amul ki ki ki juddoo Gambie wala ku nekk Gambie ak ku ñëw Sénégal ñoom ñaar ñëpp ay doomu réewu Sénégal lañ combat bi bu ñëwee arène nationale est-ce que xoyantaan mi ñu xam ñëwee naa taxaw samp ak. bàyyi ma bi moom moo koy feesal boog. yéen da a moom xoyantaan. non moom mënu ko nangu. gëmoo li tax mooy indi ko fii xam na ko fii dakaar fii li fi yor ci supporter at Saloum Gueye kenn xamul nu mu toll. kooku yéen da ngeen a foog ne moom Gambien la quoi déedéet buy bëre Gambie bis yu nekk mooy jóge foofu fii Sénégal dem Gambie. Hmm. waaw bu ne mooy jóge ko fii Sénégal di dem Gambie di pour mu pour mu bëre kon euh, Sénégal la de. ah na la Jamaïcain jox ci ko journée yooyu nga bëri ci. waaw Jamaïcain loolu laa lay wax nii parce que. journée xoyantaan Baye Mandione nga bëri ci. loolu laa lay wax nii parce que loolu euh, Tigre lañ dafa ma doon wutal adversaire. Hmm. am na benn bër bu ma joxoon bu nekk écrit euh, ñoom Tigre même chose man nee naa ko kooku kiiwu ma. aywa yow daal toog di xool mbër bi gën nooy nga jël ku diis nga delloo. non non du loolu sax demeewul noonu sax parce que am mbër yoo xam ne que ne il faut nga jël il leen parce que comme comme ku mel ni Tigre. Hmm. bërekat la quoi. te ñeme na te encore bëri na bëri nay victoire te mbër mu mag la. waaw maanaam daf ma jiitu ci làmb rek mais mooy loolu quoi. est-ce ah jamono jiite moom xaw ma kan mooy jël sama adversaire ma avance de moom mais. ngem waaw ah, waaw. léegi léegi fi mu toll nii ñu ci bari ci làmb léegi tur bi nga yoroon ban tur la ak ban tur nga jëlaat léegi. bu njëkk Mara Ndaw la woon. léegi Mara Ndao amatul. déedéet léegi xoyantaan deux am. xoyantaan deux moo am. Mhm. boo xoolee ci journal suñu làmb yeeg yëpp moom lañu doon def jamono ji. Mhm. même ci sama combat kii ñu ngi ko doon dox mais euh, taxawul taxawagul. ki nekk euh, Kër Massar. nu mu tudd Kara Doole la xaw ma. Ah, ko jëloon di jël mbër bu weex xat di nga xeex suba ba ngoon jot. moom moo bañ. Kara Doole moom moo bañ waaw. <laughs> Karaama ñëw la daw laa. Ah, moo daw dem jël keneen déggoo moom moo daw dem jël keneen def nañ ko ci journal suñu làmb. maama yaa la jëli. ah voilà moo dem dem jëli ji keneen. kon dafa jàpp ni. maama moo gën a yomb parce que gis na ne maama yaa ni ko gars yi di saax saaxee rek. Ah, mu jàpp mu jàpp ne nooy neex la donc war na ko war na ko mën a jël. daw Mara Ndaw alias Xoyantaan numéro 2. voilà c'est ça. donc. léegi yow loo fas yéene indi Mara sa loxo yi ma gis macha allah ak corpulence bi sa loxo yi foo ko dóor buntu war naa mën a fay. foo ko dóor buntu war naa mën a fay. Eh, soo ko simbulam saar ba ma ma ko dóoree dafa daw jébbalu. <laughs> ah lu ma li ma gis. te moom ëpp woon jamono jooju. moom moo ëppoon fuuf. man musuma musuma bëre koo xam ne maa ko maa ko ëpp musulam. Hmm. ci làmb yi ba ma ko duggee premier combat laa bëree petit combat yi ci des avant grand combat grand combat. ah, ah grand combat musuma bë loolu. waroo bëree kenn pour. combat njaar stade njaaram laa fa mos a bëre benn petit combat donc yi ci des yëpp grand combat avant grand combat. Hmm. waaw. mais comme yow ya promoteur yi ñu ngi lay contacter euh, war nga di mën di jël combat askan wi di la gën a xam. di xam kan mooy xoyantaan numéro 2. déggu lu mu la fi mu toll nii bu taxaw moom jamaïcain xam na loolu moom xam na loolu. combat bii nii du moo ko bëggoon mais beneen promoteur moo ko bëggoon sama manager woo ma wax ma ko man la leen noonu ordinateur moom non non mais su ma su ma nangoon ko taxaw na depuis barki démb hmm. su ma nangoon taxaw nag kon depuis barki dem maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw ñu ngi lay jaar bu baax kii moom sama waay la ñooy nekk ci kii bi di entraîné ak yooyu. te sama doomu ndey la quoi te damay dem ba seen dëkk ñoom seen côté boobu dama fay dem. damay dem ba foofu de. lu mu ma bëri waaw. léegi maa ngi lay jaar bu baax di nuyu géejawaay gi yëpp waaw di nuyu ñëpp. waaw jaar naa la. Hmm. jërëjëf. gis nga Bas <laughs> laay la la Bas ak a ñëwee xobbal. limousine ma wan nee ma xam bëgg nga limousine. ma xool limousine. Ah, ko xool boo ko xoolee. kii foog laay kii. Bas Zubeen kii xam nga ko limousine xoolal loxo yi. léegi kii lu ma ciy ragal léegi. ah, ah eh, boo ko ñemee kay jamay kay léegi mu jox ragal mu ko de wóor na yàlla. waxuma ragal nga ko ma xam bëgg nga. bëgg na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 ma koy jëfalaat bu baax a baax Mara Ndao alias euh, xoyantaan numéro 2 doon champion boo xamante ni dinaa gën a ñëw ñu gën a yaatal. dinaa déplacé wu ñëw xool entraînement yi parce que vraiment ñu mel ni yow làmb da leen dañ koo manqué làmb dañoo manqué luur bu baax. xamante ni boo xoolee taay bi macha allah ak dayo geeg yëpp tolloo nañ dinaa fi ñëw ñu gën ko yaatal incha allah rabbi jaajëfal la bu baax a loolu moom <coughs> loolu moom bëgg naa ko trop il faut que ñu gën a toog waxtaan. pour mu kii yàlla dogal na balaay boobu fekk combat taxaw. incha allah nga xam ne dañuy nekk ci dem saal wala géej wala école ba. toog entraîne ñu ñu waxtaan ci bu baax. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa gambi bu baax. di nuyu père Ndongo Cissé xoyantaan sama turandoo sama père. di nuyu ñëpp. waa di leen ziar di nuyu waa Géejawaay mbooloo at waa eh, Cité Junqoob sama gaay yi mbaaru sëñ Fallou wi maa ngi di nuyu bu baax ate jaajëf jërëjëf mbokk yi kon ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat lamba jërë ngeen jëf